kër sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdul Xaadir ngir fàttaliku kilifaam gu baax ga way juróom wa Cheikh Abdul Xaadir kon loolu dañ ciy ndokkeel du ci nuyu du siyaare kii fi nekkal sëriñ Tuubaa mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ba àggale naal yi mu naal ba naal yeneen ak yeneen ak yeneen nu ànd ko ak moom ci daraje sëriñ bi di siyaare itam Sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa si Abdul Xaadir ak mboolem njabootu si gépp sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak mboolem njaboot gi di leen ñaanal yàlla sàmm leen te musal leen te ñu àggale seen yéene waajur wa ak seen yéene bopp te ñu ànd ko ak ñoom kon ci ndigalul sëriñ Sidi la ñu ñëwee fii tey muy euh, coordinateuru màggal gi màggal gi nag nu baaxoo def at mu ne bu dikkee ñu koy waajal di ko waajale fànn yu bari waaye am ca fànn goog nag mooy fànnu dundal roo yi ci xam-xam di fàttaliku ki nga xam ne moo tax ñuy woote bés bii ndax eh, ñam yi baax na naan yi baax na lépp baax na waaye nag fàttaliku xam-xam ci moom bu ñu mën a jariñoo it loolu dara ëpp ko ci solo loolu kon day mel ne moo ci gën a ñor ndax roy itam dafa am luñ soxla te loolu mooy euh, lu leen dundal kon tey nu dikk fii nag ci barab bu tedd bii di waxtaane Cheikh Abdoul Khader mu ànd ak ay bokk yoo xam ne yi ñoo ko fas yéene waxtaane incha allah te ki nekk ci euh, sama ndeyjoor di sëriñ Sam Bousso moom sëriñ Abdoul Wadoud moom sëriñ Mor ya moom sëriñ Cheikhou Bousso kon kooku bu ne day waxtaan fii ci Cheikh Abdoul Khader kon kooku day xam ne war na fee waxtaan mu nekk koo xam ne kii xale yu naan taarif la xam nañ ko bu baax a baax ci ci waar wi ci liggéey bi ci muy jàng di jàngale di gëstu di yeete kon loolu kon kooku bu dikkee fii di wax euh, ci Sëñ Abdu Xaadir la muy wax dañ xam ne lu lu wér la lu dëggu lay doon kii nekk Serigne sama càmmooñ di Serigne Seexuna Busu euh, ñu gën koo xam ci Serigne Seexuna Busu ci mbuleen yàlla dimbalee ko moom mudaafun la waaw muharrafun la bil idaafa ila jaddihi sëriñ cumbu leen mu di ci sant yàlla bu baax a baax nga xam mooy li gën a gàtt ci boobu rek seexanaa yi bari na lool bu dee seexanaa si alaaji bu su mu gudd lool waaye bu ne seexanaa cumbu leen nag mu gàtt lool kon loolu mu ngi ci sant yàlla baax a baax ñu de ko ci santale moom it muy koo xam ne kii nag tool bi itam ab toolam la waar wi aw waaram la bu yàgg ci liggéey lool yàgg cee def wax yu am solo di xam ci yoon wi muy ku dëggu itam koo xam ne kii xam-xam rafet la am boo xam ne bii ku am saraaxa la koo xam ne kii bariwut lu muy teggi ci ay masala lu ci nekk rek na ma ko xamee gëme ko noonu noonu la koy wax mooy li war kon li wax rek mooy dafa mel ni <coughs> waxtaan wi moom sëriñ Seexuna moom moo koy def te dana ci doy sëkk su nappee ñu jox sëriñ Sam mu itam mu def taaliq bi ci sëñ bi ci ci waxtaan wi kii ñuy waxtaane nag dafa yomb waxtaane lool boo ci waxtaan sax li lay jaaxal mooy fooy tàmbalee day mel ni téere boo tiim rek yor faxarasa bi di xool ban buntu lay commencé looy wax da jaaxal foo xase tàmbale moom loo wax rek dëgg la waaye nag booy tàmbale looy tàmbalee moo lay jaaxal ndax li ci war a wax daa bari li nga ciy xam bari li ci dëgg bari te loo ci wax rek seere yi bari na lool kon moom daa mel ni boo ci waxtaan de mel ni rek hadis ngay indi téere hadis ngay ubbi rek tiim ko xëy na moom du hadis lépp de waaye moom léppam hadis la lépp lu mu def rek mën nga ne hadis sàngam ko fa la ko yonent waxe wala fa la ko defe bi kon loolu kooku la ñuy bëgg waxtaane muy Cheikh Abdoul Khadir koo xam ne jikkoom yëpp rek mën nga ko tënk ci ne moom mooy makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq lépp rek mooy Cheikh Abdoul Khadir dara def su ci ndax ba it la koo xam ne kii booy xool boo dee ndax muñkat la ñu ne moo ci gën a moo moom rek la moo doon liggéeyam moom rek la manoon kenn ku ne mën ci xeer yi baree bari ci diggam ak muñ ndax ku ne xam na ne bëgg-bëgg yi bari na waaye képp ku jaamukat yàlla bu wër xam nga ne muñkat ngay doon ndax wattandiku ak mooy ak muñ la koy maye xeet ci jaamu yàlla it ak muñ la ndax lépp dara mi newu ci kon kooku kon euh, muñkat la woon bu wér a wér ku noppi la woon koo xam ne kii lépp lu amul njariñ du ko wax lu mu wax rek lu am njëriñ lay doon kon daawut waxi waxi caaxaan daawut waxi mbóodant kon noppikat la woon kon te loolu yi bokk na ci makaarimul axlaaq ku beru la woon bëri doon jaxasoo lu dul rek ne ci bokk yi taalibe yi di dimbalee di leeral di jàngale kon loolu mooy ak ak ñàkk beroom waaye lu dul loolu rek ma nga ci boroomam ma nga ci ab liggéeyam fu mu jógee ci mbooloo mi it ma nga lu mu a rek waxtu bu nekk am na programme boo xam ne bi ca la nekk kon kooku euh, ku ku beru la woon wasalan ñu naan zahru bokk na ci ay jikkoom mooy mooy fokk mooy ñàkk a nelaw ñi fa daa fanaan ak moom xam ne ne guddi gépp day fanaan di naafila ba bat set wala fajar jot bokk kon kooku daw dëdd rek di xaran ñu eh, mel ni sama mas gi ku mën a teral gan la woon itam gan yëpp xam nañ ko ba fonk nañ ko loolu baax a baax te lu gàtt gàtt rek gan goo dikk ci moom dana teral dont ne as caa nga fa am lu gàtt gàtt rek da nga gis teral ci moom donte ne yor yor lay mu jox lam njarom njarom loolu moom ku ne xam na ne moom terakatu gan la woon ku am yërmande la woon lool ku am cofeel la woon ci nit ñi lool ab santkatu yàlla la woon lool itam daw tawat dara daw dembat dara nit la woon ko xam ne ki itam ku wakkil loon ci borom la woon tabaaraka wa taala ku amu xër la woon itam lool nag ci jublu xibla ndax loolu moom gis na ne sunna la mooy du toog mukk ci barab te jublu xibla kon kooku si Abdou Khadir moomu eh, la ñuy waxtaanee nit la woon koo xam ne kii eh, ku ku wegu la woon te daawutoon nekkutoon teggin ñaawutoon aw làmmiñ waaye ñëpp a ko wegoon ñëpp ko respecté ndax kat waaye suma taxaf ilaaka ilaahaka al ahad yaxaf ka min xawfiqahu kulla ahad kon loolu moo taxoon ñu respecté ko ormal ko doon soon euh, ak ñagasam wala ak naqar diretam kon sëñ Seexuna naa lañuy jox kàddu gi rek euh, duñ ci guddal mu wax li nga xam ne moom lay wax ci sëñ Abdou Khadir su nappee ñu jox sëñ Saam mu def ci commentaire incha allah mbokk yi itam ku ci mën a bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyyu ci nuyoob lislaam bi ñu sunu borom tànnal di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gi nga xam ne moom lañ fekk si ci ëtt bi di sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir nga xam ne moo amee saytub màggal gi ak la ci aju waaye di ziyaara nag kilifa kër gi di sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir di ñaan sun boroom mu gën koo dollee sàmm yàggal ko fi te wéral ko ba yéene yi ak naal yi nga xam ne am na ko lenn lu ci nekk mu eggale ko fu kawe njortam di ziyaare kilifa yi teew ci barab bi yépp nag di leen ndokkeel ci xew-xew bu mag bi nga xam ne moom la ñuy séentu di ko waajal ci jataay yi ñu koy waajale di ñaan sunu borom mu àggale ñu ci te yëngu yépp sunu borom nangu ko di ziyaare sëriñ alxaaji mii nga xam ne sunu kilifa la sunu jur la di sunu lépp ñu bokk moom jataay bii te mu ubbi ko ci anam goo xam ne daanaka mën nañoo wax ne tënk na li ëppoon solo ci lañ bëggoon a wax ci lu jëm ci sëriñ Abdul Xaadir di siyaare it sëriñ Saam sunu mbokk di sunu wëllëre di sunu lépp nga xam ne jataay bi moom it doy na ci sëkk xam naa ni sëriñ alxaaji ubbee rek moom it dañ koy ubbil bàyyi ko mu àggale li des ci jataay bi ni ko sëriñ alxaaji waxe dañ fee teew ci ndigalul sëriñ siidi di fàttaliku nag kilifa gu mag di kenn ci njabootuk sëriñ tuuba muy sëriñ Abdul Xaadir Mbakke mu mel ne ñi séq jataay bi mu ñi fi toog ñëpp wax ci moom lu ñu xamutoon dana jafe ndax ñépp bokk lu xam ci moom muy ak mbaax ci ni ko sëriñ alxaaji tënke waaye nag am na luñ miin ci bu ñuy waxtaan ci nitug yàlla miin nañ lu bari ñuy indi seen askan ak seeni jaaruwaay loolu nag fàgguteef la loo xam ne kenn ku nekk say waajur ñoo la ko fàggul moom nag ci coobare yàlla sërif la ci ñaari wet yépp di kenn nit ci njabootu Cheikhul Xadim loolu nag coobare yàlla la waaye daraja ju kawe la jaarit ci jaaruwaay yi nga xam ne fi lañ baaxoo jaarale doomi soxna te mooy jàngal la yar la ginnaaw njàng mi it teg la ci yoon woo xam ne fa ñu la awale danga fa awale njaboot gi loolu it ma nga ca woon. noonu la doon waajale moom it njaboot gi nga xam ne ñoom la ko sunu boroom booleel. loolu mooy liggéeyu sëriñ bi ci ñi ko sunu boroom booleel muy dongo yi di njabootu boppam. defar leen ba ñu defaru ñu wut ay barab yoo xam ne ñoom it dañu danañu fa nekk di defare la sëriñ bi defoon ci ñoom ñu di ko defaat ci ñooñu mën nañoo wax ne loolu moom tënk la boo xam ne mbooleem njabootu sëriñ bi muy ay doomi boppam di ñi nga xam ne dañoo jaayante woon ak moom ñoom ñëpp ñi nga xam ne bi ñuy ñëw ci sëriñ bi ak ndaw lañ fi ñëwee sëriñ bi jaara jaarale na leen ci jaaruwaay yooyu te mooy jàngal leen yar leen tarbiye leen tarqiye leen ginnaaw bañ fa jógee nag ñoom it ñu sañc ay barab yoo xam ne loola lañ fa nekkee ak njaboot gi loolu mooy liggéeyub sëriñ bi ci ak njabootam di liggéeyub mag ñi ci seenu njaboot ginnaaw sëriñ bi sëriñ Abdul Xaadir nag ni moo ko waxee léegi te sëriñ Alxaaji tënk lépp loo xam ne aju na ci jikko yu am solo yooyu moom dafa bokk ak Cheikhul Xadim ci ñaari wetam yëpp di shérif ci ñaari wet yépp di ku ñu waajal ci njàng ak ci yar waaye nag doon koo xam ne dafa am ay jikko yu ko sunu boroom jagleel ak ay melo yoo xam ne dafay meloy jullit di jikkoy sang bokk ci yi nga xam ne nag dafa ëpp solo ci ñu di ko fàttaliku ci moom ndax yooyu yu ñu war a roy la te yuñ mën a roy la ndax ku ne xam na ni ab juddu moom du lu ñuy royee doomu aadama ndax coobare yàlla la nit ki day ñëw rek fekk suñu borom feeñal ko fa mu ko bëgg a feeñal waaye jikko yi nga xam ne nag moo ne ci nit ki ak melokaan yi nga xam ne daf koy melowoo tam doon melokaani yi jullit di melokaan yoo xam ne di jikko yoo xam ne buñ ko seetee lépp lislaam la loola moom luñ mën a roy la ba tax na ci wet googu la ñuy gën a jëmale kàddu yi nga xam ne dana danañu ko yëkkati mu gudd mu gàtt bari na nag ay gëstu yoo xam ne dafa aju ci dunduk Serigne Abdul Xaadir bari na it ñu ci bind ginnaaw ba nga xamee ne ñi jamonoonteeg moom bari nañ lool xam ko bu baax a baax waaye soo dee xool li nit ñi xam ci moom ci loo xam ne dañ koo dund ak moom ñiy bind li ñuy bari bari dañoo dëppoo ci yenn jikko ak yenn melo kon day wane ne loolu moom ay jikkoom la yu ko sunu borom jagleeloon yooyu nag daañ ci jukki yu néew rek tàmbulee ko ci ne dëppoo nañ ci ne moom jëmm la ju defaru jëmm la woon ju defaru jëmm ju defaru nag mooy koo xam ne li ko suñ boroom indee woon ci kaw suuf nekke woon na ko fi doonoon koo xam ne it bokk na ci li doon taaral jëmmam aku doxiinam mooy ragal yàlla am na ci bokk yi koo xam ne ci mbindam sax nag da cee tënk dunduk sëriñ Abdul Xaadir ci anam goo xam ne gisaguma lenn luñ bind lu jëm ci moom lu tënke noonu ak dundam nga xam ne daf koo tàmbalee ci aw askanam ay waajuram ak defaroom ak ragal yàllaam di lim ay jikkoom nag benn par benn tàmbulee ko ci niama sharifu nadbu abdul xaadiri najlub ni balla xadiimi haadin munziri wane ne moom sharif la di doomi cheikhul xadim teg ca ne akrim bihi min saalihin qad zaanahu taqwa alilahi wa hubbi xayrin muthiri jëmm la ju defaru joo xam ne ku làmboo woon ak ragal yàlla la waaye ku bëggoon aw yiw la te ku laab la woon doonoon ko amuk sàmm ndax melokaan yi melokaan yi jullit xàqan la du caagi ne ku dib jullit rek melo yi nekk ci yow nit ki mën naa doon muslim te du nekk wala jikkoy mu'min du nekk ci moom moom nag dafa làmboo woon yépp moo tax mu nekk ko amoon ak sàmm la ak sàmm nag mooy la ko sunu boroom digal dana ko def kem kàttanam la sunu boroom di tere it dana ko wattandiku kem kàttanam ba du ca tàbbi wax ne ab sang la woon it nga xam ne jikkoy sang la amee woon jikkoy sang nag mooy képp kum jëflanteel dana la woon jikko yam la gëne ndax ngëneel foofu lay feeñe ngëneel mi ngi feeñe ci képp koo jëflanteel moom ci jëmmi boppam mu gis nga ne li nga xam ne dox na sa diggante ak moom ci su dee da ko war a jéggal su dee da ko war a taxawu su dee da nga ko war a dimbali yooyu yëpp daf doon feeñ ci jëmmam nekkoo nit ku maandu maandu it di melo woo xam ne alxuraan sax dem na bay wax ne lu la lu la nit jege jege nanga fexe ba doxale ak maandu sa digganteeg moom ci say wax ak ci say jëf. wa ida qultum fa adilu walaw kaana da qurba nekkoon nit ku wakiilu ci yàlla te mooy fab mbiram jébbal ko boroomam bàyyee ko boppam wakiilu nag taxuta bàyyeeku day na ca lam war a nekk ba noppi la muy séentu ak a yaakaar mu gëm na ci yàlla lay bàyyi waaye moom lam war a def daf koy def saa nit ki wakiiloo ci yàlla dëgg-dëgg wàkkiilu yonente bi aleyhi salaatu salaam joxe woon na ci bind yu am solo bu ngeen bàyyee woon seen bopp yàlla ni ko njanaaw yi bàyyee seen bopp yàlla féete leen fu mu féete njanaaw yi suñuy xëy duñu yor dara waaye bu ñuy gont di ñibbisi nag lañ bëggoon lépp dañ koy am ngir dañoo dénk seen bopp seen boroom waaye du tee ñu sabablu ji ña ca tële ba mënuñoo sabablu ji it dénk seen bopp yàlla fañ nekk la leen yàlla di fekk di leen wërsëgalee ginnaaw bi ñu ko dénkee seen bopp doonoon koo xam ne it aw yiw daw ci xeeb dara ci tegtale ko wan ginnaaw lépp luy ab safaan xoolal melo yu am solo yi nga xam ne daf ko tënk ci wenn bayit wariun humaamun aadilun mutawakkilun dilaalu xayrin muzhidun an munkiri sàmm di ab sang di ko maandu du wakkiilu di ko wakkiilu ci yàlla di koy tegtale aw yiw ba noppi wan ginnaaw lépp luy ab safaan dem bàgg sax ci nga xam ne ab safaan moom du ko jort ci doomu aadama ba mën na yéem mbir ngir jàpp ne loolu kat nit jombale na ko digganteem ak boroomam nga xam ne lu dégg wala lu mu gisit te muy niru ab safaan day jàpp ne loolu moom du lu war a mën a am kiimaanu yàlla lay war doon waaye nit ëppale na diggam boroomam mu jege lu bon wax na it bànneex amutoon ab cër ci xolam lu toll ne fepp suuf lu toll ne suuf bànneex amu ko woon ab cër ci ab xolam maa lil hawa fi qalbihi min xudwatin mithqaalu xabbati xardalin mutakassiri doonoon jëmm joo xam ne it ay waxam ak i jëfam day dëppoo te lenn lu ci nekk dafay seere dëddugum dëdd àdduna te mooy ab xolam yàllay kese ci nekk waaye dafay seere moom ay waxam ak i jëfam toroxlu gum doon toroxlu digganteem ak boroomam waaye ay waxam ak i jëfam it jamono bu nekk day seere muñ gum doon muñ ngir xam ne inna laaha ma'a saabiriin sëriñ alxaaji junj la ko léegi ci man ngaa muñ ba nga xam ne day wax ne buñ nee melokaanu muñ ñu ne moom mooy ki ko dàqoon ci àdduna muñ nag dafa bari ay xeet waaye bokk na ca rek xaar yàlla lépp loo xam ne yàlla indeegu ko ci yow nga mën koo muñ ba suñ borom indi ko donte it yaa ngi ci asbaab yi shahidat lahu aqwaaluhu wa fiaaluhu bi tazahudin wa tawaaduin wa tasabburi loolu ay melokaan la yoo xam ne dafa koo jikko wowoon melo yooyu nag luñ mën a roy la te melo yu jafe la it yoo xam ne mën nañ koo tàmm dégg ci suñuy làmmiñ miin ko ci nit ñu baax ñi waaye nag kenn ku nekk ci ñu nit nag mën nay nafar boppam di xool ba xam melo yooyu fan la ci toll man fan laa toll ci dëddu àdduna nga xam ne la ma war a def danaa ko def waaye nag sama xol àdduna occupé wu ko yàlla rek a ci nekk fan laa toll ci toroxlu sama diggante ak sama boroom bañ a gis sama bopp ci dara ciy jëf wala ci wax wala ci melo waaye fan laa toll ci muñ te xam ne muñ melow jullit la doonoon jëmm joo xam ne it daf daan fuglanteeg waxtu yi sunu borom yi nga xam ne du yeexe waxtu ca muxtaar ma lay jooxe waxtu yàlla yu subhaanahu wa taala te fuqaha yi dañuy wax ne muxtaar yi moom dañ ko tànnal mu kàllaf ngir mu joxe ci waxtu wi sëriñ bi sax day wax ne boo amul ngànt ba waxtu julli jàll ba muxtaar mi jàll te joxe woo ca day mel ne bàkkaar boobu bàkkaar bu ko féete kaw amul loolu nag di loo xam ne ñëpp xam nañ ko ci jëmm ji ñuy fàttaliku ma in taaxara an faridatin fi waqtiha al muxtaari inda al axdari koo xam ne it li doonoon yitteem di li ko gën a ñor mooy jaamu yàlla subhaanahu wa taala ak taxaw ci aajo mbindeef yi nga xam ne kon dafay mel ne dafa boole woon ñaari ñaar yi nga xam ne moom la fuqaha yi di séddale muy fiqhul ibadat ak fiqhul muamalat digganteem ak boroomam taxawee woon na ca gën ngaa mati taxawin te mooy jëfe ndigali yàlla yi watt maanaam sori ay tereem gërëm loo ab dogalam digganteem ak doomu aadama it mu taxaw ci seeni yitte ngir fajal leen seeni aajo nekkoon jëmm joo xam ne bokkoon na ci ay meloom muy tabe rajulun karimun du ataaya jamma nekkoon ku tabe koo xam ne nii mu waxee rek mooy koo xam ne lu mbir rëy rëy ragalu koo joxe ngir jëm yàlla sëriñ Abdul Ahad wax nañ ni daana wax ne joxe ab ragal du ko def aw fite koy def wax na ni sax àggoon na ci di wax ne ku la dàq joxe rek bu ngeen xeexoon moo lay man sëriñ Abdul Xaadir nag doonoon jëmm joo xam ne lu mu yor mën na koo joxe ngir jëm yàlla loolu mooy dégg dëgg tabe du ci xool ki jege du xool ka sori du xool ki ko amal njariñ du xool ka ko ko ñàkkal na xam rek yitte nit ki mu xeetali ko ngir jëmmi yàlla loolu mooy dégg dëgg tabe bokkul nag ak jëflante njekk ak faylante waaye moom dafay dimbale rek ngir jëmmi yàlla rajulun karimun du ataaya jamma yumsi wa yusbihu mukriman li zuwari suba ngoon nee na mi ngi ter mi ngi terle mi ngi teral gan yi ñii ñëw di sàkku si ñaan mi ngi leen di ñaanal ñi ñëw di indi ay aajo mi ngi leen di dimbali ngir jëm yàlla moo xam yitte yu leen tax a jóg nag moo xam ñi sàkku si ab dund moo xam ñi soxla xaalis moo xam ñi soxla leneen bari na ci nit yàlla yi nag ñoo xam ne loolu seen baax la mbooloo mi leen di dikkal dañuy wuute lool aajo yu leen di indi ñii ñaan moo leen di yitteel ci seeni jafe-jafe wala ci seeni tawat tawaat wala seen i bëgg-bëgg waaye am na ñoo xam ne dañuy ñëw nag ngir lafa fa ñu di indi loolu moo leen di yitteel di sàkku si lu ñu dundee ngir jëm yàlla moom nag loolu lenn lu ci nekk lu ci taxa lu ci mas a taxa jug nit lu ci mas a taxa nit jug rek ba ñëw ci moom mu fajal la sa aajo moo tax mu ne tul fiihi maa in jitahu lil ijtidaa yusri bi juudi lujji bahrin musghiri nee na moo gën a tabe géej boo ñëwee ci moom ngir sàkku ci ndimbal danga ko fekk mu tabe tab goo xam ne moo gën a tabe géej loolu nag dañuy misaal ci géej ak tab ndax ku ne xam na ne géej moom boo doon joxee misaal ci ak tabam xoolal tuubaa gi ni mu toll nga nga jël tuubaa rek nag tey bu doon junni nit a fi yeewoo man ngaa wax ne juróom-ñeenti téeméer yi maanaam géej leen di dundal bis bu yàlla sàkk moo leen di jox lu ñuy dunde géej moom suñu borom daja def barke boo xam ne képp ku ñu joxe misaal ci moom ci tab rek loolu day wane ne sa tabe jéggi na dayoo mooy li borom xam-xam yi di wax naan su jinax tëbee ñu ne jinax ji de tol na ni ñay lañ ciy dégg mooy du tolul ni aw ñey waaye jinax ji moom rëy na kon sëriñ Abdul Xaadir bu ñu ne moo gën a tabe géej loolu day wane ne moom am xaayaan la woon te melokaan yii nag day ñi ko xamit seere ko melokaan la yoo xam ne nigul ba doon mag mu dab ko dafa ànd moom ci njëlbeenam ba ni mu wijjee woote boromam inna al makaarima laazamathu tufulatan wa kada al kiraamu zawul aw zawul zawul fi l asuri nee na ay melokaan la jikko yu tedd la yoo xam ne ci njëlbeenam la nekk ak moom di wéy ak moom ba niñ ko noppee gis melokaan yooyu nag ñaare ku ko sunu borom def ci yow mooy sunu borom tàbbal na ci xoli mbindeef yi cofeel goo xam ne kenn dootu la bañati ndax doomu adama yi moom saa boo xamee ne sa digganteeg ñoom taxaw nga ca taxawaay ba nga ca war a taxaw te wenn melo ci melo yi rek yonente bi alayhi salaatu salaam ba ko nit laajee ne ko damaa bëgg nga tegtal ma loo xam ne bu ma ko defee yàlla dana ma bëgg dane ko dangay ngay dëddu àdduna mu ne ko tegtal ma loo xam ne bu ma ko defee nit ñi daañu ma bëgg mu ne ko dangay ngay dëddu li ci loxo yi ñi dëddu àdduna dëddu li ci loxoy nit ñi kon ki kiy dimbali nit ñi soxlawut la am loolu nag tax na ba sunu boroom defal ko ci xoli nit ñi cofeel goo xam ne day mel ne suñu ñu koo bañ moo tax mu ne alqaa alayhi mahabbatan rabbul wara fa ahabbahu al akwaanu wa huwa bi di xarin yooyu ay melokaan la yoo xam ne dama ne woon faaw ñu indi ko ngir nit ñi xam ne li ñuy wax ci sëriñ Abdul Xaadir ñi jamonoon teeg moom kenn xamu ci moom lu wuuteeg loolu ñiy bind ci moom it kenn xamul ci moom lu wuuteeg loolu ànd ak loolu lépp nag mu amoon ay taxawaay yoo xam ne doon na ko taxaw ci biir askan wi yoo xam ne soxla nañ ko te mënuñu koo ñàkk te yooye it yaakaar nañ ci koo xam ne déggoon na ak boroomam ngir yaakaar ci njëggalug yàlla muy taxawaay bu am solo bi nga xam ne daanako ko taxaw ci askan wi ci tudd doom yi ak taxawu ñi fi bàyyi ko te ku ne xam na ni moom bokk na ci jëmm yi nga xam ne rafet nañ njort ci ne képp kum taxaw sunu borom jéggal la te loolu bokkoon na ci ay taxawaayam kon am na fu mu féete woon askan wi foo xam ne bu dutoon ak jikko yu rafet yi ak melokaan yi ñu waxit day mel ne loola doy na sëkk ci ñu mën koy fàttaliku di jariñu ci moom waaye ànd ak loolu lépp it nag mu doonoon koo xam ne daf doon xeeñtu ak bokk fonkoon ko lool doon xeeñtu it ñi nga xam ne dañoo amante woon ak sëriñ bi ci wàllu pas-pas loola sabab nganam yooyu nga xam ne daanako def ci biir dëkk bi ak ci bitim dëkk bi di seeti bokk yi di seeti taalibe yi at mu jot di ànd ak mbooloo ngir dundal jokkuk bokk waaye ngir dundalit bëgguk sëriñ bi loolu am na ci ngan goo xam ne sax sëriñ Ibrahima sëriñ Ibrahima sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Massamba Kanni sëriñ Ibra Fat Diop moo ma ko mas a nettali ne ma moom da caa àndoon waaye nag jimmi ngan goo dama caa nettali loo xam ne dafa am leneen lu ma ci jàngaatit ci sëriñ Abdul Xaadir ndax nee na dañoo ànd ak ngan jëm boori Saalum biñ dikkee ba ak si Daaru Salaam bukki barga fekk fa sëriñ Abdul Ahad nee na mu jàdd daal di koy ziyaare sëriñ Abdul Ahad bëgg koo téyee nee na sëriñ Abdul Xaadir ne ko man de sama kàddu daf maa raw ci barab xoolalu am solo loolu maanaa sëriñ Abdul Ahad kilifaam la te ñoom ñu xam ak kilifa la ak war ma waaye teewul nag sàmm kàddu it nag day ndigalul yàlla mu ne ko sama kàddu daf maa raw ci barab waaye su fekkee may nga ma ko day lu weesu ajjuma nga jàpp bis bu la soob ma ñëw gane si la ba soxol set sedd sëriñ Abdul Ahad daal di koy nongul loolu sëñ Ibra sëñ Ibra Bousso moo ma nettali neena na sëriñ Abdul nongul ko loolu nee na ba mu jàllee ca ngan nga ba wàññeeku bis ba ko sëriñ Abdul Ahad jàppal ba mu ñëwee ba mu war a dem daa ñëw tàggu si sëriñ Fallou nee na bi mu tàggoo sëriñ fàllu mu boole ko góor gu ñuy wax Baye mbay Ngom mu di ko santu nee bi biñ dikkee nag dañoo fekk sëriñ Abdul Ahad ci yéen bi mu daal di leen di gàttandu daal di ànd ak Abdul Xaadir daal di ko yóbbu ca biir daldi woo góor góor gi nga xam ne mooy Baye Mbay Ngom ba mu ñëw fi mu nekk nee na mu yëkkati ñeenti junni daal di koy jox ne ko dama bëgg nag yónni la ci sëñ ëbdu boo demee nga ne ko lii ma koy jox day du addiya du ak may du ab saraxit dama ko ko bëgg a jox ngir bëgg bu ëllëgee mu seereel ma ni taalibeeb Sëñ Tuubaa nee na bi bàyyi mbay ngum ñëwee ci sëñ Abdul Xaadir wax ko ko dana ko loolu kat mag a koy waxal boppam daal di jug bëgg ñëw ci sëñ Abdul Ahad nee bi mu jógee di ñëw moom Baye Mbaye Ngom daal di daw siwaat waat Sëñ Abdou ne ko Sëñ Abdou mi ngi ñëw ndax nee na loolu mag a koy waxal boppam Sëñ Abdou Lahad it di jógee fa mu nekk ñu daje ci diggante bi nee na góor gi taxaw Sëñ Abdou daal di jaaraat ci li waxoon góor gi nee na Sëñ Abdou daal di ne tekk ab diir ba yàgg mu ne ko bu ëllëgee maa koy seere loolu nag moom it am na leneen lu ñu ci mën a jànge loo xam ne kon tegoon na tànkam foo xam ne wóor na ko ni bu ëllëgee moom mën naa seere kan mooy taalibe Sëriñ Tuubaa ak kan moo ko doonut Sëriñ Abdul Ahad it loolu bind la bu mu doon joxe rek bind la bu mu doon joxe ndax moom it noonu mu doone doomi Sëriñ Tuubaa jege ko liggéeyal ko liggéeyam bu màgg boobu am ci ndomb tànk ga ci ñëpp am wëlbatiku nag di sàkku ci doomi Sëriñ Tuubaa mu seeral ko ne ëllëg taalibe Sëriñ Tuubaa la loolu day wane ne ku mu ci ñun it nag war naa gën a góor góorlu te jamono bu nekk muy tuumaal boppam ndax sëriñ bi nangul na ko ak wala déet loolu man loolu laa dégge ci waxam jooju waaye déggewuma ci ne moom dafa am lu muy sikki saak ci diggam ak sëñ Touba ndax ñoom dañuy jàngale loolu sëriñ Touba ci biiri mbindam daañ ci fekk yu ni mel yu baree bari yoo xam ne day jàngale waaye jëmmi boppam ji taxul muy wax ndax boo demee ci tuxfatul awwaah fi taxmiisi astaghfirullah dañ ca fekk waxiin yoo xam ne xam nga ne loola moom xel dajul ñu di ko xalaat jëmi ko ci sëriñ bi ngan yooyu mu doon def nag loolu googu genn la ci daana ko defit ci yeneen dëkk yu baree bari ci la dara maa nag dëkk yu baree bari loolu ngir jokk rek ak bokk nawloonteeg nag mbooleem ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi maanaam cër bi mu amoon ci digganteem ak sëriñ sëriñ bi di doomam ak cër bi amoon ci digganteem ak boroomam eggaliwu ko woon foo xam ne dox na digganteem ak ñim wara def ay nawle mu def leen ay nawle loolu dafa bokk ci melo yi nga xam ne sëriñ Abdul Xaadir yuñ ko war a roye la sëriñ Seex mii ko fi nekkal yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko man nettali na ma boo xam ne mii nga xam ne dafa am ci mag ñi koo xam ne sëriñ Abdul Xaadir daf ko doon daf ko doon daf ko doon kale du jar sax nag muy tudd turam waaye ci magi mbusoobe yi la waaye daa wax ne moom dafa waxoon ne ñaar yi daal koo nawul jikkoom akub yaram bul ko ko def muy kaf koo nawul ab yaram ak jikkoom bul ko ko def diw moomee nag mu ne ma kon diw moomee mu daan kale lu baree bari la ma ca dégge mooy sëriñ bi nawoon na ab yaram nawoon na it jikkoom loolu it lu mu fonkoon la maanaam bokk bokk gi nga xam ne sunu boroom boole na ko ñi mu ko bokkal daana ko jokk ci digganteem ak ñoom ci mbooleem xeeti anam yi nga xam ne ci lañuy jokkee ak bokk kon moom bu ñu doon tënk ndax waxtu wi moo ñu ko dul may Serigne Sam mii moo war a def waxtaan wi maanaam dañuy wax ne moom mu'min la muslim la muhsin la ba noppi muridun saadiqun la moom Serigne Abdou Khadre kon loolu doy na sëkk ci moom misaal kon ñi ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla ñu ko fayal ñi ngi delluwaat di siyaare Serigne Sidi mii nga xam ne moo moo moo moo mooy saytu li aju ci màggal gi siyaare Serigne Hamsatu Mbàkke moom Serigne Abdoul Ahad Serigne Euh, Muntaqa moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ak mboolem njaboot gi fi nekk Baye Khadim Baye Khadim Baye Longoor ak mboolem kilifa yi fi nekk ñu ngi siyaare ñëpp di ñaan borom bi nag subhaanahu wa taala mu dolli ñu koo fayal te yokkal ñu ay leeram foofee mu nekk te taas ñu ci barkeem bis bii nga xam ne moom la ñuy séntu it yàlla nañ ci àgg te mu yéwén te te lépp ñu tase cee ngërëmam te mu mel noo xam ne féete na kaw mboolem bis boo xam ne mas nañ koo taxawal ngir jëmmam ji wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ euh, Seexuna fa tabaarakallah wax ji rafet na lool dëggu na lool itam ni ko waxee woon rek kon day mel ni mat na sëkk daanaka amut luñ ci commentaire <coughs> lu dul rek li nga wax ci ne ay jikkoom <coughs> mooy li nga xam ne lañ ko war a roye kon bu ñuy waxtaan lu mel nii li muy jëriñ mooy ñuy wax jikkooy kooka la nga xam ne jikkoo woon na ñu jéem ko roy pour suñ mënta mel ni moom it ñu xaw a baax tuuti ndax li nga wax léegi am amaa fa mu bokk moom yàllaa ko fa boole doon gi waliyu du duñ koy roye doon gi doomu Sëñ Tuubaa du lañ koy royee waaye nag jikko yu baax yi nga xam ne wax nañ ko nag mënees na cee jéem roy ci moom donte ne mënuñu àgg ci moom itam kon wax ay ay karaama ci nit ki baax na de waaye nag karaama kenn du ko royee kenn kon loolu moo tax li ëpp importance mooy di wax jikko yi <coughs> ak melokaan yi nga xam ne yu baax la woon kon li ñu waxoon léegi rek ci ne moom <coughs> moom addis buy taxaw la lo lépp lu mu def rek boo jàngee addis rek da ngay xam ne Sëñ Abdou Khadre jàng ndax noonu nga ko waxee léegi ci euh, dëddu adduna gi moom yéeme na ba tax na ak tabe gi lu ci nekk rek euh, alam la ci woon yoo xam ne ji ñëpp xam na ci woon te loolu lu ci nekkee nag bokk ci melokaan ak laax bokkoon na ci yëg ko yi nga xam ne bii moom la ñuy tagg nit te it moom la ñuy yaakaare ak nit kon ci boo jàngee benn addis bii rek da ngay xam ne Sëñ Abdou Khadre day mel moom lay wax euh, wa qaala alayhi salaam <coughs> ala inna kulla jawaadin fil janna xatmun ala allahi wa ana bihi kafil ala inna kulla baxilin fi naari xatmun ala allahi wa ana bihi kafil xaalu ya rasulallah man il jawaad wa man il baxil xaal aljawaadu man jaada bi xuquqi llahi fi maalihi walbaxiili man manaha xuququllahi wa baxila ala rabbihi wa laysa aljawaadu man axasa xaraaman wa anfaqa israafan yéen bi daa waxoon ne bépp tab day mi ngi yàlla warul la ko àjjana te man maa garanti loolu bépp nay itam yàlla warul na ko sawara te man maa garanti loolu ñu ne ko waaw kan mooy tab ak kan mooy ko nay mu ne tab mooy koo xam ne kii li ko yàlla jox da ci sàmmanteeg àq ja def ci la mu war a def bu ci asaka waree mu def ko ca sarax waree mu def ko ca dimbale waree mu def ko ca kon sëñ Abdou Khadir ku ne xam ne loolu moo doonoon jikkoom mu ne baxiil nag mooy kan ab nay mooy mooy koo xam ne kii day euh, àq yàlla dañ ko la ko yàlla sant ci àq ja defu ca dara ba noppi nag fab la mu am jël alal ju araam ju baree baree bari di ko dépensé di ko ci yàq kon loolu mooy koy ku baxiil donte ne ma ngay dépense lu bari it baxiil lañ ko tuddee mooy ab ko tuddee kon sëñ ak loolu waaye kon ku njëkkante waxtu bi rek dañuy jox sëriñ Sam Bousso mooy itam mu jot teg ci kàddu yi mu war a teg ñu soog a tëj jataay bi. aouzu billahi min alcheytaan arrajim laa bëgg a way man donga bi mbokk jullit yi mbokk taalibé yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Cheikh Amadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké ak mboolem jabootug Serigne Abdoul Khadir Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbacké jëwriñu Serigne Cheikh Mbacké alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man wala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jacal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ziyaare suñu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi te buñ ci tuddee sëriñ Hamza ak sëriñ Sidi ak sëriñ Muntaqa danañ yóbbaale ñi ci des ñëpp di leen ziyaar bu baax a baax di jiital sax ñaanal Cheikh Mouhamadunil Muntaqa suñ borom bàyyi ko fi ba li nga xam ne moom la yéena ci liggéeyal ko sëriñ bi ci toolam bi suñ borom kàttanal ko moom mottali ko te ñu ànd moom naka noonu di ko ñaanal sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdul moom it suñ borom yàggal ko fi ba li nga xam ne moom la yéene ci kër way juróom yi borom kattanal ko ba mottali ko di sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi muy sëriñ alxaaji ak sëriñ naa ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne indi nañ ko ci dunduk Cheikh Abdoul Khadir yaakaar naa sëñ naa dafa euh, woyof rek waaye waxtaan wi moom lépp lu ci matoon a def def na ko yaakaar naa amul lenn les si dolli ndax jàngal na dunduk sëriñ bi ci anam goo xam ne bu am solo la ni ko sëñ alxaaji waxee léegi rek day mel ne waxtaane ay xar baax ak i akub juddu dëgg la mën naa am solo waaye am na lu ko ëpp solo muy jikko yi nga xam ne moom la ñu baax ñi làmboo ngir mu doon loo xam ne ab làmp lay boon doon boo xam ne danañu mën a niital ndax bu ñu xoolee jamono fi mu ne fi mu toll nii bëri na ay ay tawat yoo xam ne dañ koy jàmbat xëy na du tawati yaram waaye tawat yoo xam ne tawati jikko la yoo xam ne Euh, tasaaroo na ci jamono ba lëndëmal ko kon dina am solo lool euh, gaa yu baax yii te Cheikh Abdoul Khadir bokk ci dina am solo lool ñuy jàngat ak seen dund ci anam goo xam ne anamuk leeral seeni jikko la ak ni nga xam ne noonu lañ doon jëflante ak seen jamono ngir ñu mën cee jàngatee ngir mu mën a doon loo xam ne danañu niital yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar sëñ naa tudd na ay jikko yu baree baree bari yoo xam ne buñ ko doon tënk rek comme ni mu ko waxee mën nga ne kaana xuluquhul quraan jikko mooy alquraan waaye li nga xam ne it mënu tuddee makaarimul axlaaq muy jikko yu baax yi day mel ne lépp lépp looy xool rek danga ko xool danga ko gis yi jëmmu jëmmi Seex Abdul Xaadir kon lépp loo xam ne ak mbaax la rek mën nga ne mooy moom day mel ne sax buñ bëggoon a jàngale euh, lan mooy makaarimul axlaaq mën nañu jël jëmmi jëmmi Cheikh Abdul Xaadir ñu teg ko boo ko xoolee rek lépp loo gis ci moom xamal ne mooy makaarimul axlaaq lépp loo xam ne gisoo ko ci moom xamal ne mooy seeni safaan nga xam ne kon loolu euh, ab jàngale bu gàtt boo xam ne mën nañ koo def ci moom euh, jikko yu bari yooyu nga xam ne sëñ Cheikhouna tudd na ko dana am yenn rek yoo xam ne dinaa ko ci euh, tànn ngir mu doon loo xam ne gis nañ ne xëy na mën naa doon saafara ci yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci suñ jamono moom ne booy dox ci àll ba ku réer la siiwee ci ay jikko nga xam ne kenn mënta wax ci moom te doo ko tudd mooy al istiqaama muy sax ca yoon wa nga xam ne doo ko wàcc mukk day mel ne loolu mooy ak njub njub nag safaanam mooy dëng jamono ji day mel ne kon bu amee ay jafe dëng moo ko waral muy ay jikko yoo xam ne jikko yu ñaaw la ak jikko yu bon yoo xam ne euh, li waroon mooy ci ab jullit mooy mu wattandiku ko waaye day mel ne tasaaroo na tasaaroo na lool kon day mel ne buñ jëloon jikko boobu rek muy tege ca yoon wa te bañ koo wàcc te mu ne loolu buñ ko ci royoon mën naa am jafe-jafe yu bari yi nga xam ne moom la ñuy dund mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko bañ a mën nañ ko mën naa doon saafara kon beneen bayit muy digle gi nga xam ne daana ko digle lu baax ak tere gi nga xam ne daana ko tere lu bon loolu day war garu <coughs> day waru garu kilifa kilifa dafa war lépp loo xam ne gis na ne lii lu baax la te day jariñ ñam yilif mu digal leen ko waaye lépp loo xam ne it euh, day ab safaan te mu mën a lor ñam yilif mu tere leen ko loolu kilifa gu nekkit war na koo jàngatee ci Cheikh Abdoul Khadir waaye nag digle lu baax ak tere lu bon daa am yoo xam ne moom lay àndal daa am yu muy àndal yoo xam ne mënta ñàkk boo ko bu ki ki koy war a def xëy na bu ko bàyyiwut xel rek wala bu nekkut ci moom mën naa am digle ga mën naa bañ a am wala tere ga mën naa bañ am waaye wala boog sax na mu ko bëggee ak euh, na na nga xam ne noonu la war a jàllee mën na ko bañ a jàllee loolu daf caa bokk mooy dëggu dëggu kon ki nga xam ne day digle lu baax di tere lu bon dëggu war naa nekk ci moom comme ni nga xam ne noonu la ko sëñ Seexuna jàngale ci euh, jikkoy Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne doo bàyyi xel kii maanaam jege na ma wala sori na ma kii daf may jariñ wala daf may lor yooyu yëpp doo ko bàyyi xel waaye dangay ngay bàyyi xel ne kii daal euh, def na loo xam ne defuwut nga tere ko ko wala boog war naa def lu lees war a def nga digal ko ko kon loolu it lu am solo la loo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci suñ jamono ndax day mel ne léeg-léeg euh, danañ gis yu baree baree bari di am waaye day mel ne euh, ña war a digle wala ña war a tere ceetaan goo xam ne danañ ko ceetaan ak bay bayal gu ñu koy bay bayal dana dem ba àgg foo xam ne mënoon na fa bañ a àgg bu fekkee ne bañ ko waree bañ ko waree maanaam digle digle nañ ko wala bañ ko waree tere tere nañ ko waaye dañuy bàyyi ba mu àgg foo xam ne xëy na euh, pexe du ca yomb day mel na ñu door cee jug loolu nag jafe-jafe la kon mbir balaa àgg fenn fi war nañoo fexe ba gàttandu ko ña nga xam ne ñooy kilifa ya lañ ca war a def ci digle lu baax ak tere lu bon ñu teel koo def balaa àgg ci balaa àgg fenn fi beneen bi it mooy euh, li ñu tuddee saraaxa muy koo xam ne amul looy làq-làqal wala looy nëbbu maanaam li nga war a wax danga koy wax mu leer bi ko defee ki nga xam ne moo ko moom euh, ñi ko dégg boog ku nekk da nga xam la nga ca moom nga jël ko euh, ku nekk da nga xam la sa wàll nga jël ko waaye di digle lu baax wala di teralu lu bon waxee ko ci anam koo xam ne it xëy na ka maanaam ka nga xam ne sax moo tax ngay wax xëy na moom mën naa bañ a xam ne moom ngay waxal loolu it solo si bëriwul kon euh, li ngay wax mu leer it ba ki nga xam ne moo koy moo ko war a jariñoo mu man koo jariñoo loolu it lu am solo la kon loolu it ci ay jikkoom la bokkoon ñu war ko cee roy bu baax a baax a baax mooy li ngay wax it mu doon loo xam ne euh, lu leer la bu dee da ngay digle lu baax ki ki ngay digal mu xam ne lii kat da koy digal mu leer ci moom bu fekkee da ngay tere ñu xam ne lii ngay tere mu leer kon lool it loolu it lu lu lu am solo loo xam ne lu lu lu lu mat bàyyi xel la beneen bi mooy li ngay euh, ki ngay digal wala ki ngay tere. nga bañ cee bañ ku la ci yedd wala ku la ci xas wala ko ci ragal maanaam laay yaxaafu fillaahi lawmata laa'im mooy lépp loo xam ne gis na ne lii lu mu war a def la day cay yemale ku ko ca tagg ak ku ko ca xas loolu it lu am solo la loo xam ne mënta ñàkk ndax loola la koy waral lay tax nit ki mën mel noonu mooy dëggu giñ waxoon sànq nit ku dëggu buy wax euh, dana du du bàyyi xel maanaam nit ñi ci euh, tagg gañ koy tagg wala boog euh, xas gañ koy xas waaye day bàyyi xel ak yàlla mi nga xam ne moo ko tax a def loolu kon li ci am solo rek mooy ixlaas mooy li ngay def nga def ko te yàlla tax mooy tax nit ki mu mën a dëggu ci ay waxam kon day mel ne Cheikh Abdoul Khadir li nga xam ne moom la ñu jàngalee ci ak dundam mooy doonoon na koo xam ne lépp loo xam ne war na koo digle euh, du ca bàyyi xel ku ko ca tagg du ca bàyyi xelit ku ko ca ku ko ca xas waaye day mel ne jamono fii mu toll nii loolu jafe la Euh, ragal ragal ku ko ku ko xas dana tax sax mu defee loo xam ne gëmu ko loolu gis dañ koy gis lu baree baree baree bari koo xam ne boo bu ngeen beru woon lam lay wax ci mbir bokkut ak bu génnee nam koy waxee loole la koy waral mooy euh, ragal ku la xas wala bëgg ku la tagg loolu nag jikko la joo xam ne euh, ki nga xam ne day digle wala muy tere war na ko bàyyi xel te lees mën a jàngee ci dunduk Cheikh Abdoul Khadir la kon daal day mel ne yu baree bare bari la yoo xam ne ci ay jikko yoo xam ne lépp mi ngi ci ci ci ci moom mu doon loo xam ne waras na koo gën a yaatal gën koo jàngale ba ñi nga xam ne ñooy way jamono moo xam képp koo xam ne taalibi nga wala koo xam ne kilifa nga ku ci nekk rek am nga ci loo xam ne mën nga koo jël ci dunduk Cheikh Abdoul Khadir nga nga nga nga nga nga jàngate ko si day mel na kon xëy na euh, gis ngeen ne jamono ji asamaan si neexul te xam naa timisit li si des bariwul lool xam naa dañuy gàttal foofu kàddu yi rek di sant bu baax a baax a baax sëñ naa ci waxtaan wu am solo wi di ko ñaanal euh, suñu boroom mu defal ko kattan yokk ko tawfiq ba li nga xam ne moom lay diggal ci yoon wi suñu borom defal ko ci kattan te defal ñu ko ñun ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. tabaarakallaahu jërëjëf sëñ Sam. te it commentaire bi mën na sëkk li ci doole rafet na lool mëntoon na ñàkk. waaye kon ni nga wax rek jëkkanteeg waxtu wi dañu jox sëriñ Mbàkke Abdourahman mi nga xam ne mooy wax ci turu comité d'organisation bi sëriñ bisimilah. bu nag ñu jox sëriñ Sidi mu sànni ci kàddu yi ci sànni balaa sëriñ Mbàkke yow ñu jox sëriñ euh, Mouhamadou Lamine nga xam ne moom itam faw rek mu war ubbi jotaay bi ci si Abdou Khadir bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. xam naa dañuy gàttal jotaay bi ndax ni ko suñ ko waxee rek. waaye nag sëñ Sidi mii dafa am lu mu def loo xam ne nag fa war nañu wax mbooloo mi fi teg mi fi Sidi mo sëñ Sidi sëñ Sidi Moxtaar mii di saw turandoo ni mu def nga def kër gi luy aajoom nga jóg faje ko Seex Anta topp magam sëñ Bamba def ko sëriñ la def yow it nii nga def sëñ seex de xeebunu ko doon général nag ci kër gi lépp luñ bëgg a jañ nga jañ ko nag bam ni jañ-jang daanu bay xalangu te doon pusab kër gi luy xët te doon pusab kër gi ah, luy xotteeku rekk nga ñaw ku ñëw nga fat ko te fóot jikkoom ya it fete ko bàyyi faalu kër gi tam sëñ sii di nee ñu yawa ngir luñ fi sëflu lu diis diis diis nga jël yanu ko yanal nga donga yi seeni bang bang yanoot bëggi bëggi mbokk yeeg say mag te daaw nga ko doo mere kenn te koy mer it nga neexali ko baraana koy fooye koy fay nag nga fay li ko yal na la yàlla saxal ci biir di sàmm la it loo sumb yàlla na ci am ndam am ci yiwu takku li tax nga am lii danga am yar bu mat sëkk nag bu ful la lal jiitalub xam-xam bu wir jëfe ko yaatal nga sëy mbir ba tax ndaw yëpp yëpp yëpp la rus say bokk weg la sa mag yeeg rakk yeeg yëpp a nangu sëñ Abdou mu bàyyi Touba lu nit bëgg xam ci yow mu xamle ko moom màggal gi kenn mënu ko sëñ Saalihu sëñ Saal mu sëñ Moodu yor siiwal gi siiw na fu ne ngir noo ko bëggee bu koy xam rekk jóg defi ko nga tànn jëwri ji muy sëñ Seexuna sa moom sëriñ Maram muy borom Pastef te kenn yebu ko sëñ Seexuna nag dañ ci wax dara wax dëgg yàlla naa ko dara maanaam bu ñu mësaa ne ca daara ja dafa amoon fit lool am na bis boo xam ne Touba Kaas lañ dem mbooloo bari tooñ nu waaye day rëdd rëdd rek rëdd mbedd mi di ku dëkk solo ci sama gannaaw ku dëkkoo kaas bu jógee fi ma ma def loolu bon kon kooku moo tax sëñ bi jiital ko waaye gis nga jarbaatam yi màggal gi comme ci comme ci xool rek nga xam lan la war def fi ne fi ne gaa yaa ngi ni sëñ Fallu ñoom ah waaye nag ba tey ma ñëwaat sëñ Mbàkke mi Abdourahmane it sëñ Mbàkke mi fi Abdourahmane yi sa kàddu la yor mooy mufti joj fu mu àddoo wax lu jub te dëggu sëñ Mbàkke lu mu la wax dëgg la te lu jub lay doon xam naa nag am na jamono joo xam ni dafa tuuti woon loolu ñu ci gis sëñ bi Xaadir war a dal jàng sëñ bi Xaadir ah, kii di ma tudd dal mën ngaa wuñu fukk sëñ Mbàkke daan benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk sëñ mat naa dal de mu daal ne benn moo moo ñaat xam nga ñu fukk bi def naa moo ñaat daal di benn ñaar juróom ñaar daal di daal <laughs> dégg sëñ sëñ bi daani kii ak ak a bari solo xam solo soos na moo ko topp moo tax sëñ bi da ko def loolu lii dégg nga ah kon nag man mat lamin man mad lamin sëñ Moussa Kam sëñ jili maay ki ko doon ngir soxna moomee ma wax ni lenn seetlu na ko soxna moomee moom sëñ Abdou Khadir na maay Moussa Kam sëñ Abdou Khadir ndax dama ne sëñ bi niru nga sëñ bi jëmm ja niru nga sëñ bi jàmm ja mu ne ah yow kat des na yow sëñ Moussa Ka sëñ sëñ sëñ Tuubaa daam sëñ Moussa Ka sëñ Abdou am sëñ Moussa ndax li nga mel benn kenn amu ko ku du sëñ sëñ Abdou Khadir kon ba wala ko ci moo tax nag man mat la min sëñ Moussa Gam sëñ bi maay ke ko doon ngir soxna moomee wax ne leen seetlu na ko sëñ si euh, sëñ jiri lim niru sëñ Touba de daa bari lool am sëñ Moussa Ka ku moom as Moussa amu ko gaa yi jël si yëpp mu dañuy xor-xoral waaye amuñu as Moussa sax sëñ si di yoon wi nga aw mooy yoon wa yàlla na nga dox ci yoon wi téeméeri at nag yuy tegalu takku loo sumb yàlla na nga am dam sax ci wér gudd fan te yàlla féewale la seytaane ak ku fakku ci barki seex jiili ak seex bamba dolli yeneen xéewal gu dul dog te aar kër seyxu jiili amiin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim euh, mënu mu fee ñàkk <laughs> Uh, aousubillahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa barakaatu ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sunu jawriñ sëriñ Cheikhouna Bousso mi sëriñ Mouhamadou Lamine wax léegi moom la sëriñ si dafa jawriñ ji kon leer na kàddu gi ñu yor nag sëriñ Sidi moo ko daan joxe tey nag ci moom lañ fekk si kon jëwriñam mooy joxe kàddu gi di seere seereel mbokk yi lu tuuti rek ki sëriñ Sidi mii sëriñ lemin wax na ci lu bari ci taxawaayam ci kër gi taxawaayam ci ron ay kilifaam taxawaayam ci njaboot gi waaye ñun dañuy wax rek taxawaayam ci liggéey bii ko sëriñ bi dénk muy taxawu màggal gi ak taxawu kër gi rawatina màggal gi mu ne ci kanam ñëpp nekkin wu rafet wu mat woo xam ne li ko lal mooy ak woyof ak ubbiku ak yaatu dënn ak mën a dékku ak di déglu ñëpp loolu ñu ñëpp mën nañ koo seere xeebut xalaati kenn te it fonk lool nag wa shaawiruhum fil lépp lu jóg day woote déglu xalaati ñëpp nag door a def la muy def fa ida azamta fa tawakkal ala loolu di loo xam ne ñun ñëpp seetlu nañ ko te mën naa toog fu mu toog di woote di joxe ndigal boo dañ koy def ndax mooy suñu kilifa waaye moom daa tànn di toog di diisoo di waxtaan xalaat bu ñëwit mu déglu ko jox ko ne ñu ñu càmbar ko kon ndam yu am ci kër gi rek mooma te te lee tax mu am ko kon ñi ngi bëgg ci moom ñun ñëpp di wane suñu xol bu sedd ci moom ñaan yàlla gën koo sàmm gën koo dëgëral wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet na mat na tey ni mu koy defee ci xew-xew yi noonu la koy defee ci ñëppit képp ku am lu xew sa kër mu dikk taxaw ci teewal fa boppam teewal fa njabootu Sëriñ Abdou Khadre gépp maanaam ci wàllu diine ruuxiyan wa yenn maanaa noonu ñëpp lay taxaw loolu moom ku ne ci noonu mën na koo seere kon bu ñëwee fii ci biir këram di jotaay yoo boo xam ne nit bokk na ci li tax mu joxe mu santaane ko yaatal mbirum Sëriñ Abdou Khadre ndax sëriñ Abdou Khadir dafa wuutu sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa seex si danoon a xéewal la ñaamatun awlaaha haadil xalaa'iqi kullaha mawlaaha xéewal nag buñ la ko xéewalee boo goree doo ko yemale ci sa bopp daa yaatu ñëpp jot bëgg na loolu jot ci fu ne la ñuy dem gis nga ren dem nañ kër sëriñ Fallou Mbacké sëriñ Omar dem kër sëriñ Moxtaar Bintaloo tey ñëw ci këram ngir lan wan nit ñi sëriñ Abdou Khadir fàttali leen ko ci jamono ji nga xam ne ñun ñëpp ñoo soxla lii sëriñ Cheikhouna doon wax ak sëriñ Fallou ak sëriñ Sam ci dunduk Sëriñ Abdou Khadir ñun ñëpp ñoo ko soxla wan nañu bu baax a baax ne sëriñ Abdou Khadir li yàlla bëggoon nit mel ni meloon na ni ñu ja war caa jàng yéen nag mën naa nekk ñu bari ci noonu dañoo gëm ne baax daal nit ñi dañuy xaw a waaye daal lu yàlla bëgg kenn mun ne mel <laughs> ah kay sëriñ Abdou Khadir meloon ni yàlla bëgg li yàlla digle lépp la ko ci waroon daf na ko mësta jaar ci luñ koy tare dugg ci biir dugg ci biir xakim ba waxoon ne bul fekk ku sànku nga yéem lu ko sànk waaye ki jar yéem mooy ku mucc laa taajaban min haalikin kayfa hawa bal faajaban min saalimin kayfa najaa kon ku yéem yéemal say bu xaajar jamono ju lëndëm jamono ju xat jamono jaxasoo nga ne ci seen biir di dund kilifa doon na ko wax daan ne Seydi Abdou mooy koo xam ne ëtt yëpp pay yëpp lañ ko mën a waxtaane ci biir yoon wi ak bitti yoon wi amul fu ñu ko mën a waxtaane ndax jikkoom ay jëflante yu rafet ak dundam diine ak dundal ko ak fonk sunnaam ak dëggu gi mbokk yi doon wax léegi nga xam ne mooy laltaay yëpp ndax bu dëggu amul rek jëflante jafe nit koo xam ne saa boo dikkee loo fekk ci moom lépp lu mu la wax noonu la mel du la wax mukk nii nar leneen loolu la jamono soxla Sëriñ Abdou Khadre noonu la meloon sëriñ si nag bëgg ñu jël bind yooyu moo tax at mu jot ñu tànn ay kër di fàttali lenn ci dund Sëriñ Abdou Khadre kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la gën la dëgal gën laa dooleel waaye eh, yaakaar yi kilifa yi am ci yow ba dénk la liggéey bi waxtu wu ne ñu ci gis lu sedd seen xol gën jëm kanam lii ñu wax nag kii lii waaye ci lépp la lépp lépp taxawaay bu ñu ko dénk rek mat gi la cee wane ak rafet gi soo ko fekkee ci biir mbooloo mi da nga jàpp ne kenn la ci ñoom rek te sa bu ko neexoon toog joxe ndigal rek def leen toog fi mu toog waaye cawarte ju nga ko booleel jataay yi fu ñu dem moo koy ba ki dem ni mel nii la ci biiru taw lañ nga dafa waxtaan wi waaye lépp mu teew ba mu àgg loolu nag sëriñ bi man la mbokk yi dem faaw faaw ma ma ma wax ko sama làmmiñ ci seen tur ngir sant la ñaanal la ak wax ne la nag laxasaay gi moom dañ koy gën a fedd li fas yéene ànd ak yéen liggéey bi incha allahu taala di ñaan yàlla dafa lañ ci ngërëm taas ñu ci barke Cheikh Abdou Khadir Mbacké mi tax ñu koy def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Mbacké kàddu gi rafet na te leer na waaye ko ñu fàtte mbokk yi ne rek euh, le 27 incha allah jotaay bi ñu ngi koy defee kër sëñ Abdou Khadir ci 5 heures incha allah ñu ci woo ñëpp bàyyi ko xel kër sëñ Abdou Khadir ci 7 heures 5 euh, jotaay bi fa lañ koy defee kon ñu jox kàddu gi sëriñ Sidi mu yott ci ay kàddu tëj jotaay bi ñaanal mbokk yi. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci santam di jiital sunu nuyoo ak sunu siyaare ci ki nga xam ne mooy alxalifatul aam di taifatul muridiyya sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa Mbakke xafisahullahu wa rahaahu ñu ngi koy siyaar di bu baax a baax ci bis bi nga xam ne moom la woote woon tey muy bisub bi jàng alxuraan ak jàng xasida ak sikar ñu sant yàlla baax gi suñu bis bi nga xam ne tombe dafa tombe ak bisam boobu mu woote woon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ci kanamu njaboot gi ba naaram yim naal yëpp meggale ko di nuyu di siyaare Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga mooy xalifa Cheikh Abdou Khadir ak njabootuk Serigne Abdou Khadir gépp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàggal leen suñu kanam ba li ñu bëggee liggéey seen waajur yi lépp ñu def ko seen ànd ko ñoom gis nañ bu baax baax doyloo gi ak kóolute gi nga xam ne am nañ ko ci ñun ba liggéey yëpp buñ koy def dañ koy bàyyi ci suñ loxo kenn duñu ci laaj nooy doxale ak loo bëgg a def lu def rek jum na ci ñoom te xam naa ne du ñàkk yu dëng ci ñoom waaye du nga ko xam ñoom mukk kon nag ñu leen gërëm bu baax jabatuk sëñ Abdou Khadre gépp di leen sant te di leen ñaan yàlla leen suñu kanam seen bàyyi lépp ñu liggéeyal ko di sant bokk yi nga xam ne samay bokk lan nga xam ne saa bu ma wootee ñu fekk si ma lu mu xat xat xat moo leen soxlaa ñu bàyyi seen itti ñu ànd ko ñun loolu yëg nañ ko bu baax di ci jiital kooku Serigne Amadou Mbacke ñi nga xam ne moom ak Cheikh Abdou Ahad radiyallahu taala anhu nga xam ne ñoo bokk nekk Serigne Mountakha dal fu woote woon tey jii ci kër ga nga xam ne ñoo fa bokk nekk ba quatre heures mu soog faa jóge jëm këram xatoon na ci moom lool waaye teewut bi mu xamee ne bëgg mu taw rek bàyyiwaat na itam ñëwaat ànd ko ñu ngi koy gën a gërëm bu baax di ko sant bu baax a baax di gërëm Cheikh Mountakha mii nga xam ne moom itam ñëpp xam nañ suñu diggante ak sama doomi Serigne Jeedi Serigne Saliou moom ak Cheikh Sanibou ànd ak Serigne Abdou Khadir moom ak Cheikh Sanibou ak bokk yi ñu àndal yëpp nag maa ngi rafet bu baax seen taxawaay bi ak wétli gi ñu wékkati ci jataay bii sant bokk yëpp nag ñi nga xam ne teew seen ci fii mboolem ku ko dégg rek bi ñu nee sama kër lay jëm si ñëpp sawar nañ ñëw si ku fi teew ku ne yëg nañ ko ci suñ xol ak suñ xel sant nañ la baax ñu ngi ñaan seen tànk yi yëpp doon xéewal ak barke ak yiw ñu dee seen ngërëmul Serigne Touba ak kàddu si Abdou Khadir ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bii di di taxawu màggalu kër Serigne Abdou Khadir gi mboolem comité bépp bépp bépp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax liggéey bi bu jaaree yoon rek ñoom kenn mënul dara ñoom ñëpp xam nañ ne yëf maa ngi ñoom a ci képp ku ci gis loo lu war a defar rek du ci xaar la nga war a def yaa ngi koy def yëpp seen taxawaay rafet na lool tur moo fi nekk ci man naa ko jiite waaye defuma ci dara lépp ñoo koy def ba noppi jox ma sag bi kon nag maa ngi sant mboolem képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci màggal gi di ci taxawut maa ngi lay gërëm di sant di ko seeral Serigne Cheikh mi nga xam ne moom la jiite liggéey bi ne ko daal liggéey bi moom tur bi laa nekk ci kanam rek waaye mbokk yi nga xam ne muy Serigne Cheikh ak mboolem ñu àndal ak sunu jarbaat bi Abdoul Khadir ak sëñ Mbacke ñoom ñëpp ak mboolem mbokk yëpp daal taxawaay yi ma waroon taxaw ñoom ñoo ma koy féetewu xanaa ñoom kay dañ may informé rek waaye ñoo liggéey métti bi ñoo ko yoree ñu ngi leen di gërëm. di sant bu baax a baax ñaan yàlla ñu yàgg ànd liggéey bi te daje ci ngërëmul ak Cheikh Abdoul Khadir ak ngërëmul Serigne Touba ñu ngi sare jog sant bokk teele bi yëpp nag mboolem koo xam ne bi nga yéegee bis bi rek bàyyi nga say ite ñëw fii mooy suñuy xarit di suñuy soppe di suñuy wëlëre di suñuy taalibe ñoom ñëpp ànd nañu ñoom bis bi ku ci ne la nga war a taxaw taxawu ko ba mel ne nu ko bëggee toloon naag jamono ji nag lim dajeel ak jaww jeeg ak xat-xataa xataa yi moo tax ñu baree bari da leen jëgal leen jëruñ jëruñ ñu ñëw kon dina gën a mel ni mu mel waaye nag mbokk yi fi teew rek di mbokk yoo xam ne ñëpp ku gis xam ne tànk caaxaan yëkkatu fekk ci ci mbooloo kon nag gërëm ñëpp sant yëpp di soññi ñëpp nag ñu waay waajal bis bi ñu jëm muy bisu Cheikh Abdou Khadir xam ngeen ren dafa da jeg élection yi da dajeeg nawet bi ñu yëpp bari jafe-jafe waaye nag sëñ Abdou Khadir moom xamewut élection xamewut nawet bisam moom dana war nam na mu war a mel lay mel dana jeg na mu war a jege kon nag ñun ñi nga xam ne amuñu lu dul moom daal ñu ngi ci soññ ñëpp nag ku ci ne la ci daa taxawe nga fexe ba yokk ko waaye bu ci dellu ginnaaw mukk ndax sëñ Tuubaa mu amul tànk ginnaaw léppam tànk kanam la te nii mu tàmbalee rek gis nañ ne fun fun fun romb rek mel na na nañ ko bëggee woon li taw yi bare bare ñu ngi sant bu baax saabu saabu soxlaa rek bis booba yàlla dinañu suturaal ba daan waxtaan ba noppi bu dee taw mu door a taw loolu nag ak cant la ak mel ne suñu liggéey bi kon su sëñ bi nangu na ko kon nag na nañ gën a góorgóorlu bu baax gën ko fonk gën ko waajal ñu soñanti bu baax mbokk taalibe bi ñu gën a góorgóorlu bu baax ci sunu taalibe ci sàmm ko fonk ko te xam ne lu am lum rëy rëy bu ñàkk ak taalibe amuñu dara waaye luñ mën di ñàkk ci am sëriñ bi amuk taalibe mel na ne ñàkkuñ dara kon nag dañ gën a fonk suñu taalibe te maytu bu baax a baax yii xew ci àdduna si yi nga xam ne di fëkke rek yu bees yu xew ci yoon wi waaye xew ci diine jëpp sax waaye dugg na ci yoon wi rek ñuy woote ñoo xam ne si ñu baree bari xamuñ fan jëm sax bay woon nit ñi te nit ñi nag daa mel ne ñoom ku leen di nax moo leen gën ko woo ci dëgg saa boo leen wooyee ci dëgg ñoon la ginnaaw waaye saa boo wooyee ci caaxaan nag ñëpp wuy la te ñëpp di la layal boole ci nag kon nag nañ góorgóorlu baax ca xam ne dëgg rek mooy mujj ku la ci lu dëgg dana am bis mu bëgg laa wëlbati jëmee ci dëgg kon nag nañ dellu ci dëgg bu baax a ma tëjee ko nag ci loo xam ne comme am na point waxtu muy fan yi suñ dëkk bi daa am loo xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ko terewoon ci dëkk bi muy politique xeeti politique yi xew ci dëkk bi 1977 te Moustapha ak Samba Yàlla ci la sëñ Abdoul joxe woon ndigal tere ci Touba jëngatu politik booba tey ñu ngi koy sàmm waaye seetlu nan na nag élection yi passé yii ñu nekk moom mel na loolu ñu ngi ko bëgg a xëtt diggante ak guddi kenn xamatu looy def ci dëkk bi ndax ay karawaan ñoo xam ne daanaka ay way sax la ñuy teglee loolu nag ñi nga xam ne xëy na sëñ montaxare ko yowgut ak ñun yëtu dëkk waaye noonu xam ne daal ñi ngi bëgg a di baaraas boo xam ne si ëpp naa bat di suñ si amat lay fàttali woon na ko bu fi toogee te léegi gis nañ ne lu wër ci dëkk bépp dañuy jaar ci wetu jumaa ji sax def ay cor cortège di teg ay ay wax yoo xam ne amul benn maa loo xam ne lu ñàkk teggin la ci dëkk bi loolu nag war nañ koo taxaw ba bu mu am ndax lii ma gis de buñ ko bàyyiwut mun eggee yi élection présidentielle da nga gis ñu meeting ci dëkk Touba gii te loolu dara jëru ko ndax la taxoon sëñ Blaat tere mooy daa mujjoon di bëgg jaxase bokk yi ci dëkk bii loolu taxoon mu tere ko ci dëkk bi te buñ ko bàyyee nag bu mu jël siwaat da ngeen day da ngawaat fii ay bokk yi xeex ci dëkk bi ngir politique bu bon bi rek kon nag lool nañ ci bàyyi seen xel bu baax fan yëpp maa koy naqaru lool di ko ñaawlu lool ci mbedd yeeg cortège yeeg marché yi nii def ci dëkk bi rafetut ja jaaduwut jëkkut sëñ la dara wax ne kuy am lu yëngu te na dem ba ba Mbàkke baa nga génn ndaam benn meeting bu ma sa def boo xam ne amul ci na ci dëkk bi amul dañuy dem ba ndaam jëm jëm léegi nag bari na ci dëkk bi eggu ay meeting sax mi nga am si ndax ñu ngi wootaay ay xomay café lu ko ci doxal lu ko wante ay meeting la rek waaye bu leen bàyyee nag meeting moo ci topp kon nag loolu ñu ngi koy fàttali ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dëkk dëkk bi ak di di ko fàttali ki nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ëllëg si amoon ba mu fàtt ba dexaat ndigal man jëm ko tay ci dëkk bi ndax yàq képp lay def waaye amul njariñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala kon buñ ko fàtte le 27 incha allah ci ko sëñ ba na ñëpp taalal sëñ bi ñaan na ñëpp taalal sëñ bi amiin amiin amiin